na masaka wallaay xarit dama dama génnoon yow mu yow dëkk bi ma nekkoon gannaaw Tambacounda gee yaa ngi dégg dëkk ba de xam na mu tudd pamparim param pampa hee dëkk pël la bu jaxasoo ay séeréer yow dëkk bu poussière boo xamante ne wotu càdd càdd xam nga càdd dëkk kon ko mën a nga ni yaa ko xam ta xamoo xamoo lu nu si nga mel ni ma ma fi ma xool kon kaf am naa nu may def tey sa sa sac na nga ko fekk ca ba man mënatuma bokk ak yow. ndey ku ma yóbbu ko jaxat génnuma kër gi. nan nit ki da ngay sëy moom moom ba mu neex ko rek nga ne fase nga ko. da ngay sëy ba mu neex ko rek nga ne fase na ko ak li ma daj ci yow fii li ma la fi wan yëpp bu yàlla dogaloon ba tey njaboot nañu am nañ doom yu bari lu ma mën tiire naa ko ci bal yow la kenn xamul loo naan. jigéen ñi naan raay seeni pooj photographe bi naan ci raay yi pooj yooyu ñu ngi ci journaux yi ëllëg yàlla may la doom doom ji doon président de la république wala mu doon kilifa baa mu doon imaamu ratib te fu mu romb rek ñu tijji journal ni ko sa pooju yaaya ngi man fii laa dëkk sabar lay doon baab doon ak simb tëggkat bi day jekke rek ku torox ku bëgg a torox ku bëgg a torox waa koñ bi di ñëw ñi bëgg a torox boog di ñëw ñu jekki fii fees dell te kenn du leen woo daani rek ku bëgg a torox ku bëgg a torox ku bëgg a torox mu fees dell bu ñu ñëwee ba wër géew bi nag mu ne ku dugg torox ku dugg torox ku dugg torox nga gis ñi bëgg a torox tàmbali di dugg bu ñu duggee waa ji tiim leen ak tama ju ndaw ji yaa yaa torox nga nag gis na julli bi dugg sam cam nga jëlan lamin naar nga jëlan man waali ma ni lépp fi lay neexee mais diw essence sa bët yi xonk na cur cur kañ foo ruus xanaa démb moom ay affaire nga doon jël de ay bon laa jël ay lan ay bon ay bon ay yamba yamba ay billaay dem na ba aéroport wara dem ba Allemagne seeti sama jëkkër waaw ñu ma dooma daa ma dem ñibbee ma reew sodium eh, lay lay lala waaw waaw lay suju bada mario dana sodium aha aha aha woy xalaas suju bada mario abilay yaa ngi bay seet yaa ngi bay seet yow Fallou du ne woon naa la nga bàyyi lii ngay tox xaw ma fasaa xaw ma ah yaa ngi ko dugal estati di ko def ak jigéen joo xam ne nii moo sut sa ndey ëpp sa ndey ponkal ko nga di ko dugal estati waaye yow